mbokki internet ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci tey nag ñu ngi arène nationale ki ñu moom mooy leen dafa structure bu bees i Ibulaay Ibulaay production taxawal yu sundur bu Balla Gaye ak moor Kang Mor Kang Kang école di Cheikh Mbaba Mor ñu ngi lay ziar fay naa la Lamine ba am nga jàmm am Babacar man fay naa la am naa jàmm bu baax di sant yàlla bu baax di julli si yàlla di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax a baax a waaye sañ sëñ sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax a baax waaw di rafetu teewaay bu baax di xam ne ñun euh, doomu dëkk bi lañu ñun waruñu xuloo ñu ŋaayoo ñaar ñi xuloo ñaar ñiy na ñu bàyyi ba bis ba ñun ñaar ñoo xul ñoo war a xuloo ñoo war a ŋaayoo kon loolu noonu man nee naa la képp ku koy def digaluma la ko. digaloo képp ku koy def digaluma la ko. nan ñu bàyyi man ak moom ñoo ñoo ñoo lekkante avance nan ñu bàyyi ñu rayante man ak moom. te incha allah kii gëm naa ne wallaahi asim daal di gën mënu Youssou Ndour mii. incha allah damaa gëm ne kii mënu ma téye. Mor loo ëppale Youssou Ndour. Youssou ëppale wu ma ko dara damaa doon xale bu ndaw fekk si yoon wi. mu nekk route nationale ma nekk Apias kon kii waruma téye. ah da ngaa gëm ne boo ko fekkee da nga fay jëlee dem. man damay man aw ma lu may def lu arbitre na firit ma dox wuti ko jàpp ko daan ko man si loolu laa nekk. loolu nga gëm. Youssou maa ngi lay ziar. Youssou xool caméra yi. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli sund bi. Uh-huh. di sant samay ñaari waajur di sant ak lu bay rasul laay bi yëpp di ñaanal ñëpp yàgg bi am gudd fan ak wér di ñaan ñëpp am jàmm waaw ah, di gërëm waa Touba waa kër Baye Karim nga xam ni samay nit lañ samay xarit lañ di ñaanal ñëpp jàmm comme lu mu wax rek man moom ñooy des si géew bi ñuy wax ñi ñëpp fee la ñuy yem ñuy wax ñi ñëpp fee la te bis bu ma merloo wañ gën a ba ma gën a yëg Mhm. su waa géew moom dina fa daj lu metti uh-huh. en face caméra yi. dina fa daj dina fa daj lu metti géew bi moom faw mer am fa. ndax géew bi faw ngeen dóorante. non kii loolu bit la fanaan. waaw faw ngeen xeex moom. ndax neen daa jaar si euh, péage bi la jaar. waaw yaa ngi nekk ab euh, euh, route nationale. léegi péage bi boo fa jaar da nga dagg ticket wala doo dagg ticket. faa nga taxaw dagg ticket. fa lay taxee dagg ticket. Ah, maa yor ticket bi dagg. koy ah. soo ko jox te bés bi di nga ko jox ticket mu jàll wala da koy tere di jàll. bis bi. waaw dama koy jox ticket mu taxaw dootul jàll. dootul dem non non kii làmb moo moo tax moo jël ko nii. mais ki waru woon bëree moom ay xale ngeen dama xale laa man xa dama dégg wii ma. xale mu ndaw laa. waaw du mag. déedéet ay xale ngeen man ay xale ngeen. xam nga la moo tax ma jël ko. waaw tuñ ma jox mu bañ. Ah, moo tax nga jëli moom. waaw moom xam ay ñoo xam ne ñoo bawal. waaw bawal bu ma tudd seen tur. waaw. yàgg nañ ma jox ñuy bañ. ca biir ko xam. moom nag moo ñëw na day jël combat bi. waaw na taxaw dëggal boppam dem na fu nekk. pour ah. combat bi taxaw. ah dina xam naa ne dañ ko dee pour moom moom. mu ñëw daan ci moom mais mënu ma daan. Mor Kang Kang mi mënu ci yow dara. jamais. mais pourtant géej waay la mujjee de. ah géej waay la mujjee de. fa lay yem. donc man sama làmb dafa métti de. dafa métti de. Ah. yoo xam nga loolu bu baax a baax. wax ay jaaxaan daanu ma de. tamit du gàllaaj. Ah. doole. waaw liggéey. lépp mooy ñëw mais kii xooluma ko. Ah. xooloo ko de. non am na solo mu me mu me mais di gërëm di gërëm di gërëm promoteur bi di gërëm promoteur bi nga xam ne moo tëgg combat bi ndax combat bi ñu ko bëggoon bari na. Ah, yàlla Youssou Youssou Youssou benn affaire dafa am dafa am loo xam ne foog ñu wax ko. Mm. parce que defe naa yàgg moor Kang Kang yéen ñaar rek nekku ngeen fi ay mbër Sénégal yaa ngi dégg. voilà régulariser guñu combat bi amu ngeen droit taxaw voilà maturité ah voilà licence bu leen bu leen ko mayee may ko Ibulaay Ibu Ibu Ibu ngeen soral Ibulaay Ibulaay day doog a tëgg làmb c'est la première fois bu ñëwee tëgg leen tamit il faut ngeen may CNC may Ibulaay loo xam ne tey dañ leen ko nangul te mënoon nañ leen ko bañul quoi ngeen seen nit gis nga nit ñi ngeen di àndal nañu xam ne ñoom ci biti la ñuy taxaw donte nag seen i xarit lañ ñoo leen di jàppale ñoo leen di defal lépp waaye nag nañ leen gunge ci loo xam ne ëllëg su ngeen ci duggee su ngeen ci génnee maanaam mu jure leen njariñ yow Youssou Ndour mbër nga doomi nga moom mii mbër la mu ngi wane boppam ngeen di ay xale yu ndaw toll ci war a ut liggéey kon affaire bi na rafet ko moo gën coow li saagante nday bi loolu du image bu rafet quoi yow Balla Gaye mooy sa leader te defe naa def na carrière ba yegsi fi mu yegsi mm-hmm. kenn ko ci yenn dépassement yi kii am na ñoo xam ne ñoo ne ci kanamam mook tafaati na dëkk kon am ngeen ay idole am ngeen fu ngeen roy kon saagante waxante lu ñaaw ñi ngeen di àndal indi fi problème après ëllëg ñu yàqal promoteur yi tëreen maanaam yàqal ñeneen ñi loolu bu mu jëkki ci yéen quoi moytu leen loolu man loolu laa leen doon wax quoi dafa am lu garaaw lu man nee man nee na nee si appuyage bi la jaar waaw loolu day yéen ñaar te damay dag biir yow yaa ne yow yaa man si appuyage bi laa jaar yaa ko wax waaw si appuyage bi laa jaar man damay dag biir da ngay dag biir man daa am biir bii bi moo ko yor. waaw da koy da nga ko koy dagloo for. li mu leb da koy fay. daa leb bawal dara. lebul bawal dara ba tàyyi. ñaata yoon kon dama la bëgg xam ne li mu leb da fay moo tax bu ma dikkee si appuyage bi damay jënd. li mu daan bool mat na kàr la su ma dikkee si instant mooy si appuyage bi. waaw waaw wax nga dëgg waaye bébé julde. Babacar Mbaye Diouf. laay soppi laay soppi. Babacar. xam nga Youssou Ndour mi xaw naa jeexal waa Baol. Babacar Babacar. man su ma jubal na ko yaa fa daan. te loolu biir reefan la man kay maa nga foon. jàpp ko foofu duma ko daan ko. Babacar ñu demoon nañu nii. Babacar laay père Maxime Bargane. Babacar loolu amul problème. waaw man damay jënd. sama ah. ñax laay jëndee man bawol bawol laa. damay jënd. kon meru waalo waalo laa. kon meru gars yi di ko faj. barke Seydina Mouhamad. yaay faj mer bi man dama di xale bu ndaw. nekk ci yoon te dama gëm ne Youssou mii mënuma téye. riyaay nag amul solo. waaye dama bëgg xam ne bu ñu dongalee ngem li ba tak waaw wallaahi xasim ngaa liggéeyal ba ma xool doomu bawol waaw xool li ma wër. waaw barki Sëñ Fall barki Sëñ Fallu caaxaan waruma man dama gëm ne Youssou mi fu mu taxaw taxawoo fekk fa daan ko. gars yi dëggal la kalamalee gi loolu la amul kalamalee bii ma maanaam bii maanaam bu bees tàq. xamoon ne na dama dégg ñu naan fecc ak way lool nga ci am. loolu lépp la xaalis yàlla sunu borom mooy maye. ñun amuñu dara. da ngay fecc de man awma dara. dama yalwaan. awma tus dama yalwaan. moom mu xaalis. waaye xaalis nee nañu du làmb maanaam xam nga ñun ñuy def. ñun dañuy ñaan ñun ay ndongo lañu ñun dañuy ñaan. dañuy dañuy ñaan te yàlla suñu borom. yàlla na ànd ak ñun. képp koo xamante ni nii bawol bawol nga. waaw dama bëgg. waaw maanaam nga jàppale ma si combat bi. yéen waa kolobaan waaw yéen laay wax. waaw Colobane dafa manqué champion. te sampiyo boobu noonu. waaw man mii maa ko war a dugal. kon ngir yàlla waaye yéen yéen waa Colobane. dooleel leen ma. Mhm. jóg. seen mbaaxaay seen ñaan seen yaa ngi woote de seen xaalis ngeen jàppale ma ndax kii dégg ngeen dégg ngeen li mu wax nee na man aw ma xaalis kon kon man damaa war a war am xaalis sa combat bi maanaam lii premier premier face to li amul problème moom bu mu metti waaw su bëggee metti day metti su bëggul mu day metti kon dafa war a metti woyul fële waaw ndax benn song mën naa jeexal combat bi ban song mën na ko jeexal benn song waa léegi waa léegi moom na taxaw dëggal boppam rek. bu taxawee men song man na ko jël. xamoo dama digg léegi mu ne dama lay rey. rey waaw nee na moom nee moom bu ko gars yi merlooyee dama lay rey man man maa lay merloo. doo ci mën dara foo taxaw ma fekk la fa boo bëree ma daan la barke Sëñ Fall laa la giñal lii nga jàpp ne doole la wallaahi xasim laa la giñal yow maa la doole. loolu leer na Youssou Youssou dégg nga li mu wax de nee na moo lëpp doole li nga foog ne doole la du doole. te boo ko merloo yaa koy merloo te moo lay merloo te da lay daan loolu de moo ko wax yaa ngi koy dégg. waaw di nuyuwaat ñëpp rek. waaw dab. sama mbokk waalo waalo yi. sama mbokk bool bool sama mbokk pëli waa Kolda. waa Guinée. waa Fouta. xam Bawal. Touba Toul Réfan. maa ngi bëgg ñëpp ñëpp ñaam jàmm ndax fu nit nekk. di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp di wax ñaan ñëpp am jàmm comme lu mu wax rek moom combat bi man du ma si doo ma si waxati. jarta commentaire def na. non xam nga fu mu toll li ma war. waaw jëf. bés ba nga ñëw rek nga jëf. yee pour man moor mi. waaw amul leen loo xam dinaa ko wax. Ah. wala moom ma koy wax may ma koy tontu. Ah. yaa ngi dégg. moom nee na. waaw day ñëw pour duma ma daan ma. waaw loolu la wax de. waaw coojubul ba maa ngi koy xaar. ba bés ba ba bés ba mu ñëw. ñu xool ana Ibulaay nee na maa baxal la wax dina fekk lu dëgër. maa ngi baxal de des fois mu farox de Mor. Mor man damay woo. Ibulaay kay damay woo képp koo xamante ni. promoteur bi laa damay woo képp koo xam ne bawal bawal nga. waaw tënk rek. boo bëggee ñi nga xam ci bawal nga nga. dama lay woo ci combat bi. di leen wax ne seen doom am na combat. Uh-huh. combat bi nag maanaam dañ ko war a gañ. du combat bu ñuy ñàkk. Uh-huh. dañ ko war a gañ. am na solo. waaw di woo nag Kéba Kanté bu baax baax baax baax. waaw di ko woo bu baax. Mm-hmm. waaw maa ngi koy woo. Uh-huh. di woo sama kilifa yi nga xamante ni ñoo may ñaanal. Uh-huh. maa ngi leen di woo ci combat bu baax. Mm-hmm. man yoruma yàlla mi yor yàlla ma ma moor waxal ci làmb ji nga bàyyi jëlee ñee seen jërëjëf Papa jërëjëf jërëjëf lii maanaam la woon rek taxaw yàlla may yàlla waaw wuy ma Youssou xam lu ma bëgg xam lu ma leen di ñaan dama bëgg sportivement mm-hmm. ngeen joxante loxo taxaw gars yi foto leen mm-hmm. ngir yàlla ko yonent bi sans problème parce que tamit ay nit ngeen ay sénégalais ngeen quoi te ci réew mi ngeen dëkk da ngeen wane seen bopp non taxaw leen taxaw leen ñoo ngi jégalu bu baax voilà jégalu xam ne ay ndaw la suñu yaram mooy tàng voilà seen yaram tàng et puis ñaar ku ñu xam xam ni kenn du xuloo kenn du xeex vraiment ay borom baax ngeen quoi rek gaay yi ñu yéen ñi nekk moom. waaw dañ wax dafa yaru dafa. bien sûr loolu am na yaru noonu. waaw làmb xëy na moo demee nii rek. waaw mais ñooñu jégaluwaat wér. c'est que ànd taxaw ñëpp suñu supporter ak xam ñun ñëpp benn lañ. voilà yaa lu ñu wax wax wax waxal ñu reyandoon fii. waaw man moom ñu dugg si géew. bien sûr yaa ngi dégg te ñun ñaar ñooy moom tamit combat bi yàgg na wax moom tamit jël ma may ma xaalis. ok digg bi Iboulaye le nouveau promoteur est là le nouveau combat est là combat jànk combat bu réew mi doon xaar kon léegi leer na aha léegi leer na nañ date bi kañ la sax Iboulaye amaguñu date mais loo bëgg a dégg daal saison bi lañ koy bëri Xaadim Seck bu soobee suñu borom yàlla nañ ko fekkee te taal ko yéen ñaar na yoonte leen voilà lii moo rafet lii mooy fair play Iboulaye sa loxo ci kaw lii moo fair play lii moo rafet Youssou Ndour bu Géejawaay Mor Kankang bu Bawal jeex